ne زيد ماء المئن ولا تزال مراقبي درام porte parole mi ngi nii toog ñu ngi dalal Serigne Mouhamadou Mahfouz Mbacké Serigne koy dalal yegsi na léegi Serigne Cheikh Tidiane Seck bu Ceneba bu Ceneba mi ngi ci mbooloo mi mi ngi ci mbooloo mi Serigne Mohamed Cissé. Serigne Mohamed Cissé. di doomi Serigne Moustapha Cissé Pire. di doomi Serigne Moustapha Cissé bu Pire. teew na fi teew na fi. Serigne Modou Ngom. Serigne Modou Ngom. nekk ak Serigne Modou Mba Serigne naag taawu Serigne Modou Kara. ànd naag taawu Serigne Modou Kara. Seydina Ahmed Khalifa Niass bu Kaolack. teew na fi Serigne Sidi Muxtaar Kunta Serigne Sidi Muxtaar Kunta di xalifa Baye Sidi Muxtaar Sidi Lamine Kunta ci Ndiassane mi ngi ci mbooloo mi Serigne Cheikh Ndiégène teew na fi njabootuk Serigne Saliou Touré ñoom ñëpp ñu ngi ci saal bi Serigne Saliou Thioune di taawu Cheikh Béthio Thioune woo na ma mi ngi ci yoon wi ñëw léemu yegsi ambassadeur Gabon ambassadeur Gabon teew na fi waaye dafay teew wuy si la ci màggal gi waaye waxaale ni la uh, waajtaayu le 27 du mois de septembre di ubbi teeg Masaalikal Jinaan meerub Lambarna ak meeru Libreville ak meeru Mayomba ñoom ñëpp joxe nañu seen i confirmation ci invitation bi daanu ñëw teew ci ubbi te jumaa jooju Serigne Jibi Soare Serigne Jibi Soare ak Serigne Mbaye Thiam ñoo ngi ci jotaay bi Serigne Babacar Pascal John Serigne Babacar Pascal John. Serigne Dame Ndiégène Serigne euh, sa xarit député. Demba Diop si. sa xarit député Demba Diop si. ngi fi mi ngi fi. délégation Moustarchidine wal Moustarchidaat. délégation Moustarchidine wal Moustarchidaat. Serigne Mansour Ndione. Serigne Mansour Ndione. ngërëm. ak kàddooy seede. Serigne bi nee na cant ngërëm yi. sëriñ bi nee na ngi jëm ci kàddoom yii cant yeeg ngërëm yi jëm suñu mbokki jullit yi fi teew yëpp di suñu mbokki teewan di si Ahmed si ak mbooleem ñu mu sëriñ bi nee na ak suñu mbokki Njaasaan ak suñu mbokki Janaba ak suñu mbokki Kawlax yëpp sëriñ bi nee na ndax jóg gi ngeen jóg ñëw fi ci Cheikh Mouhamadul Basir. sëriñ Mouhamadul Mahfouz Mbacké nee loolu njëwal sëriñ Touba gep ngeen ko defal. sëriñ bi ne nak kaddu yu ci des. sëriñ Mouhamadul Mahfouz Mbacké nee mooy kaddu yu dem ci sëriñ Bassirou Abdou Khadir mi tok sëriñ bi ne kaddu yu ci mom sëriñ bi nee na loolu moo di mbégteem yoon wépp ak bokk yëpp sëriñ bi nee ndax fi mu féete ay magam tàmbalee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ba ca Cheikh Sidil Mokhtar ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi toog sëriñ bi nee taxawaay bu taxawaay bu rafet bu ne mi ko tax ci yoon wi sëriñ bi nee tax na kon njabootu sëriñ Tuubaa gépp sëriñ bi ñu ngi leen di seere seen i cant ak seen i ngërëm sëriñ Bassirou sëriñ bi ne monsieur le ministre Abdou Karim Fofana monsieur le ministre sëriñ bi ñu ngi lay jottali ngërëm yi ak cant yi bokk yëpp nga jot ko président Macky Sall sëriñ bi ne gis nañ ni mu jàppee sëriñ Touba